tey c'est impossible ce que vous êtes en train de faire je sais que bëggu leen ko sax ki leen ko sax dañ leen ne wàcc bi celui qui vous demande ça Antoine Diome depuis le terrain ci la première arrestation de la journée d'un leader marché la marché wax leen en tant ak Macky Sall moi c'est tellement allez vous vous demandez de faire dugg leen mais c'est quoi mais c'est quoi c'est quoi le projet mais qu'est-ce que vous voulez reculer reculer reculer fan laa jëm mais s'il vous plaît fan laa jëm. ouvrez le wax. écartez-vous s'il vous plaît écartez-vous. arrêtez Déthié Fall arrêtez. écartez-vous s'il vous plaît. mi ñoo ngi koy dugal ci fourgonnette gendarmerie bi. Déthié Fall ñu ngi koy ci fourgonnette gendarmerie bi. Déthié. Le leader de PRP. S'il vous plaît, mais c'est pour aller. Montez, monsieur, s'il vous plaît. Montez, montez. Montez, s'il vous plaît. Faut pas, faut pas, faut pas nous obliger. Mais obliger quoi Faut pas nous obliger. Faut pas nous obliger. Ah, mon blessé. Non, on va pas. Non, on va faire quoi Reculez. Reculez. Reculez. Déthié Fall arrêté ah vous avez vous, vous avez suivi en direct l'arrestation euh, du leader du PRP Déthié Fall ah moom gis ngeen ko moom moom lañ doon arrêté noonu euh, dugal nañ ko ci fourgonnette de la gendarmerie ah mooy noonu taxaw ci biir ngeen koy gis Déthié Fall arrêté waaw ah, la porte de la fourgonnette fermée gendarmerie jàpp nañ Déthié Fall euh, ki nga xam ne mooy Khalifa Sall moom ma nga dem jàpp nañ Déthié. président ñu ngi si sa ginnaaw président. tëj nañ seen fenêtre ba.